Mondi Toudou Yahya Jame le 25 mai 1965 Tia Kanilé. officier armé de l'ONU, nek est homme d'état ca Gambie Il 22 juillet 1994 Jari ci coup d'état mujjee président de la république de Gambie le code 18 octobre 1996 mujjee Tokyo ca du di ak benn pouvoir autoritaire waaye li mu daan proclamer mooy Gambie dafa war a nekk ni ki benn état islamique ci atum 2015 bu ko defee population bi yëpp daal di jàppee l'islam ni ki pas-pas ñu def réew mi mu nekk république islamique waaye nag la ko jëli ca nguur ga mooy bi ñu demee ba ci 2016 ci élection présidentielle yi mu doon janook ak opposant bi gënoon na mag ñu doon ko tuddee aadam baro kooku mujjee na ko gañe ca urne ya waaye mu bañoon a wàcc ci nguur gi daldi proclamer benn état d'urgence ba mujjee prolonger li tollook ñetti weer ci mandam te waa assemblée nationale ñoo ko defaloon muy ngomlan ga waaye ci lu ko gën lut pression internationale bi di ko ngawtu ngawte bu mujjee sax ñi ñu tudde waa CEDEAO di kuréelu réewi Afrique soowu jant yi daldi jël dogalub ci ne bu yaaye jàmme wàccul ñoom ñooy dem ñu daldi koy yëkkati te fi ki nga xam ni moo gañe élection yi te muy Adama Barrow waaye bi ñu demee ba ci 21 janvier 2017 ci la daldi quitter pouvoir bi bàyyi Adama Barrow ak nguur gi mboolem nag luy tënku biographie kii di Yaya Jammeh lañu la bëgg indil ci vidéo bi waaye laata ñuy dikk ci firi fàcce yi dañu lay invité ci sunu chaîne YouTube bi bu fekkente ni abonné ku woon gaawal daal di te bés like su fekkente ni abonné nga bul fàtte commentaire wax nu sa xalaat ci vidéo bi wax itam ndem am nga ko bëgg ñu yartalal la biographie am wala histoire am daañu la ko defal ci mborte TV. yaay jami mu juddu 25 mai 1965 moo ngi soqeekoo ci askanu ay baykat muy ay paysan bi muy jël nguur gi mu ngi nekkan lieutenant de l'armée waaye mu ngi jaaree ci coup d'état naka bi ñu demee ba ci 25 juillet 1980 ci la renversé dawude Diawara mi nga xam ni moo nekkoon njiitu réew ca Gambie depuis l'indépendance ci la Yaya Jammeh mujjee nekk ni njiit Waye Nek ni ki conseil dirigeant provisoire des armées bi nga été dissoudre 28 septembre 1996 ci fofu nak ci la chef d'état muy njitu rew budé lu soxal walu élection daldi nay fondé alliance patriotique pour la réorientation et la construction ngir mana dem élection ñu fal ko première fois ci Ben scrutin douteux manam palin go xam donne doon ci sikki ci ndax moko ko wala tit manam di dafa élection yi 29 septembre 1996 ginnaaw lolu ñu falat ko benen yoon ci premier tour ci l'élection présidentielle du 18 octobre 2001 ci luy ñi mané a 53 des suffrages ci vous benn jafe ci la troisième mandat le 22 septembre 2006 mu am ca luy tolloog voix contre 26,6%, qui principal opposant te l'avocat bi ñu doon Darbo bu ñu ci CEDEAO ci jamono jooju ñu vote élection waaye nag campagne moom jaarale wuñ ko yoon tegunu ko ci ak mandute Yaya Jammeh falaat nañu ko beneen yoon mu nekk ñeenteelu mandat de cinq ans ci 24 novembre 2011 mu gagné luy toll ci 71 virgule 5 pour cent ci ay voix ki nekkoon itam wujjëm ci boo bële élection présidentielle mooy kii di Ousseynou Darbo ba léegi moom Ousseynou Darbo moomu ngañaayam mu ngi tolloon ci 17 virgule 4 pour cent ak weneen wujju muy beneen opposant bu ñu tuddee Hamad Ba moo nekkoon troisième candidat bi moom moo ngi am pour cent waaye ginnaaw loolu ba ñu demee laata juróomeelu mandat bi ñu waroon ko amal ci élection législative yu 2011 yi laata loolu Yahya Jammeh dafa menacé ni région yi nga xam ne partem du fa gagné dara da leen di génne ci élection yi te itam loolu lay def bu élection présidentielle dikkatee. Yahya Jammeh ci diggante bi mu nekkee ci nguur gi ba ci mars 2014 langue officielle bu Gambie moo ngi nekkoon anglais waaye bi ñu agsee ci atum 2014 mi Yahya Jammeh na ma soppi anglais daal di koy def arab mu nekk langue officielle bi ginnaaw bi nga xamee ni am na benn rapproche ak ñii di arab yi. waaye itam mun na ton ni lool dana dimbali projet bi moo bëgg sembu te mooy def Gambie ni ki benn république islamique moo mën a daal di yemb waaye itam lënkaloom gi nga xam ni dox na digganteem ak naar yi dana ko njàppandilal loolu ba ñu demee ba ci 30 décembre 2014 ci benn déplacement bu mu amoon jëm ci bitim réew régime am nekkoon na victime bu benn tentative de coup d'état bopp ki ko amaloon mooy capitaine de l'armée gambienne bu ñu tuddee Lamine Sané nekkoon ancien capitaine waaye loola jàllut ba bi ñu demee ba ci 10 décembre 2015 ak ndonte sax seen disposition constitutionnelle dafa am nu mu tëggoo terewut Yaya Jammeh daan ni moom day dogg ci def réewum Gambie ni ki république islamique. jaajëfal ci sunu chaîne YouTube di xalam TV ñu di la xamal nag ni vidéo bi gën a gudd lii na mu nga ko àggale dangay dem ci sunu chaîne YouTube bi tudd Mboot TV HB muy chaîne boo xam ne day yaatal ci lu jëm ci histoire géographie ci yenn personnalité yi naka noonu culture ak civilisation bu yenn ci xeet yi ndegam nag fii di xalam TV dañoo namm di fi amal ay vidéo yu yam mbokk yi di ko sakkoo noonu waaye am na ñooñ dañuy bëgg ñu yaatalal leen lu jëm ci histoire ndegam nag Mboor TV dañu ko jagleel mbooleem lu soxal histoire ak biographie muy sira muy jaar-jaar ci làkk wolof ni ki ni koy gisee demal nga gaawantu abone boo ak yi di nga fa fekk ñu détaillé la fa lu yaatoo yaatu ay personnalité yu mag kon boo abonné gul dem nga ga abonné waaye itam boo amee xalaat bu rafet wala nga gis wala nga xam ko xam ni bëgg nga ñu yaatalal la histoire wala ñu ni biographie am da koy bind ci commentaire yi te bañ a yàkkamti saa bu nu ko jamono ji mayee ak njàppandal gi ñu indil la ci ak yaatal ndem sob na yàlla kon fii lañuy yemale vidéo bi mu soxal histoire Yaya Jammeh waaye nag boo bëggee xam fan la Yaya Jammeh mujj ginnaaw bi nga xamee ni fexe na ba amul coup d'état boobu ba toog luy tolloog ñaar fukki at ak ñaar ci nguur gi bëgg na a nguur gi ak li mu doon wax ci ni mën naa faj lu jëm ci sida ak lu jëm ci asthme ak yenn ci tawat yi naka noonu itam crime yi nga xam ni tuumal nañu ko ni ci am nguuram la amoon loolu lépp daal bo ak di nga ko fekk ci vidéo yi ONG yi rapport yi ñu def ci moom ak sanction yi ñu teg ci kawam ak fi mu mujjee ak kii di Adama Barrow kon jaajëfal nañ la yow mi ñu doon topp ci sunu chaîne YouTube bi di Xalam TV jaa ngeen jëf waa li ma leen a eda mooy bari mbaal yaamarla min na wolem yéen doomi Sénégal yi altoo Sénégal diŋolu c'est nguur boobu xam ne français ñoo ko yore alla wo masakunda mi ka be français le bulu si jikko bu ñu nekk yéen ngeen gën si ay be wo jikkoo min kono altoo Sénégal diŋo al bo woto na ngeen xam ak Sénégal ala lon ko Gambie ni Sénégal bellal nañu woon kilinam nungu te mu nahari Macky Sall ne maka Macky Sall bés bi naa jot boo xam ne doomi Gambia senegal Sénégal e yëpp benn la adiyata Macky Sall ya kuyata ye lumbe si la Gambia ni Sénégal bébé ku wo kilinde yaa lekk la pour Afrique mu la dem kana pour Afrique la ñaatuta Séné yéen Sénégal antol Sénégal ñun dañ le ene jàmm man maa ko billahi wallahi taala ntol de nga ngani nganiyale billahi wallahi taala ndele ngaa fo ngal ngani ya kayrole waaye amu leen seen boppa amu leen indépendance. bari alma fan soto alma la indépendance soto. Abdou Diouf ñaari yoon la tëj frontière bi. Abdou Diouf si ñaar wada naanee soroon na. Abdoulaye Wade juróomi yoon la tëj frontière bi. Abdoulaye Wade naata si ñaar luuluwaabe naanee soroon na. bi ma paree pour feeku. mu paree pour kañ Macky Sall ñëw Macky Sall naata sii ma ne ko yow du ma la muñal sax cinq minutes n kaay koy hani minute luuloo la soo tëjaatee frontière bi nee ñi naanee o soro dinaa ko tëj mbenn na fana naanee mbaa mutala ngaa so ñu seet kan mooy sona ngaa jibee jumaale be bataala moo man suma nit ñi duñ sona bi ko ñun yàlla lañ am te gambien kóolu te bataala nga alale soto be la ma ne ko yow français nga am nga ñu seet kaay koy te france tubaabool la mu dof dof Ah, a fañ cafarne aɗaɗa soron par ce que tubaɓe lu tax ñu ko ñuy wax sénégal nguuri sénégal muy tej kaatu mina dina tubabol ka sénégal man sakunda suku suku pour ya sunane ne gambien si ma buga torop iko gambien ol yaate kanu bakele so suñ teje ya hasma économie bi so ne je ne nane soro e gambele économie tiña ablaye wada ñew ako ablaye wada naata mu ne soolul gambi mu ne ne soolul gambi aka man suula gambia akako ini wo because ragal ma kenn ma ne ko bi nga amtee kawar laa xam ne yow Sénégal am nañ problème ako kabiri ngaalon ko i kumo mantiyo soto le ngaalon ko Sénégal e problème soto njiit dangaa seet mandargaam a kaye ko ñaaton ko i kaala mankutoo taaman le jiibe a bala mu ne ma mais ya duma musuma ooye président nag yaa jame la ma de anane man commandi président a kaa commandi yaa jame mais yaa jame léegi yow ma bugga yam a kaa ete yaa jame no because yow nkay ko hani katu ko ite ken hamu ndayange joy ndayange le mo malon foybe jele kanne bam foybe kumbo kanne mune me at least o, o nga respecté ma mala mak ah,